waxoon ko waa Kayar diggoon ko waa Kayar te jógewoon ko ci gouvernement bi ay ministre diggoon ko moom la ni fedd waat di ko yeesal ndax dëgg la jaase dem na waaye Kayar a ngi fi Kayar dong moo ko ñoroon li ko ñëwoon ci Kayar ëpp ko solo ëppal ko solo mooy yoon bi waroon a jaar gis ngeen fi ngeen jaar ba romb këram gi wër Kayar ministre des infrastructures diggoon ko ko ba envoyé une fois Ageroute ñu def étudier ak lépp ba préparé góor pour def ñuy leen di ñaan taxawaay boobu. ngir yëngale ka ngir la mémoire de Ndiassé ndax Kayar gépp conseil municipal ak waa Kayar ni seen nañu yoon boobu su yeggee li bëgg mooy président Macky Sall inauguré ko ñu tuddee ko Ndiassé pour pérenniser sa mémoire loolu ab yóbbant la boo xam ne il faut ñu wax leen ko pour que ngeen mën a jàpp ci loolu ndax yoroon na ko loolu. ko ñoroon ñoroon lool sax ba bi mujjee taxaw bi moo tee conseil municipal bi loolu leen wax tali bii su ma defaroon ma bàyyi politique ndax naa xam liggéey naa kay kon nag projet baa ngi noonu monsieur le ministre état baa ngi noonu monsieur le ministre waaye ñeen xam ngeen xam leen ni daal ñun fan Ndiassa taxawoon fan la ñuy taxaw duñu yox duñu yox ak fulaak fayda ju mat sëkk na ak yéen ci ngor ak ci diine

ñu ngi leen di sant leen gërëm tant que ngeen ñëw yàlla yaa def ko aw yiw tant que ngeen yor yàlla yaa def ko yiw te yàlla yokk leen yéen ñëpp a ngeen yëpp seen yéene seen mébét ci at mi yàlla nga yàlla mottet yéen a xam ni ngeen bëgg yàlla nga yàlla def waa Kayaar kontaan nañ seen xol sedd na mënuñu leen fay yàlla ñu am fay laal yàlla yàlla fay ngeen baal ak asalaamaaleykum wa rahmatullah